mbokku téléspectateurs yi nga xamante ne ni yéen a baaxoo safoo tey topp télé bii di Galaxy TV comme niñ leen ko waxee woon rek noonu lañ koy defee di wëyal di ko def ba tey ba tax na rek tey ñoo ngi fii ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké ñu gën ko xam ci euh, Baye Lahad Mbacké ma fàttali leen rek que mu ngi nekkoon xalif général de Mourides de cent 1968 à 1988. tey nag euh, dañoo ñëw rek euh, ngir euh, wan leen lépp loo xamante ne nii day daa dee xew ci biir kër gi ndax umpalewu leen ni waa Ahlu kafe fii la ñuy nekk mais ñoom nag yemuñu ci séddale kafe rek dañuy daa dee ay lekk Euh, di ko jébbal ñi nga xamante ne nii ñooy waylaago yi mu nekk lu rafet loo xamante ne nii ñëpp dañ koy rafetlu ba tax na rek ñun waa Galaxy TV Sénégal dañuy ñëw dugg ci biir wan li nga xamante ne nii moo di moo fi xew. maa ngi tudd Omar Fall Samb nekk président daayira Euhlou Café Touba bu soxna maam Issa Mbacké. Euh, président euh, ñu ngeen nekk di def liggéey bu rafet fii ci Touba ñu bëggoon xam rek lan moo waral tur bi Euhlou kafe waaw loolu boo ma ko laajee soxna mama dina am contentement pour répondre loolu Euhlou Café li ko waral jàmbaar ju baax ju jàmbaare bokk ci njaboot Serigne Touba bi ñu dippee ko soxna maam Issa Mbacké bintu Fasine Modou Fat Xari ibnu ma Massamba moom moo ko créé ca ba muy tuut tànk yaroo woon ci ëttub soxna Asu Gaawaan mu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul mu joxoon ko nag ndigalub séddale kafe ci jaamu yàlla yi foofu la euh, tur bi jógee muy ëxlu kafe mu daan ko commencé ci benn cafetière daan ko yóbbu ci cérémonie religieuse yi di ko séddaleel boppam moo waral ëxlu kafe ba mu egg ci fii tey boole mbooloo mu bari nekk ci biir réew ak ci bitim réew. soxna May nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax soxna si. maa ngi si jàmm bu baax sant suñu tubaab gis la nga nekk ci liggéey bi yow euh, lan mooy sa taxawaay fii si fédération Ahlou Café. waaw moom ndongal ndongo yi rek comme fii nga ñu fekk euh, fas yéene jëfal ndigal jëfe ndigal li nga xam ne moom la moom la ñu sëriñ bi sant jaare ko ci liggéey bi nga xam ni moom la ñu ànd te muy Ahlul Café bu soxna maa Isa Mbàkke fii nga ñu fekk nag daanaka boo ñu fekkee rek xam ne bokk na ci euh, farata yi nga xam ne mooy jëfe li sëriñ bi waxoon te ñu ko suñu boromam daf cee bokk muy bernde bokk ci farata yi te ci loolu lañ nekk fi mu toll nii moo tax ma la ñooy ndongal ndongo yi fexe ba niko ko bi bëggee buñ mënul léppit ñu def ci man suñ kem katan ànd ko mboolem waa Ahlul Café ci ndigalul aussi soxna maa Isa Mbàkke ci noonu daal lañ nekk nii. Ah, jëwrin ñu bëggoon xam rek lan mooy sa taxawaay lan mooy sa taxawaay euh, fii ci fédération Ahlul Café. waaw nun euh, suñu taxawaay euh, fii nga xam ne mooy que sëriñ Abdou Lahad Mbàkke dañoo nekkoon ci biir résidence Seexul Xaddim lu jiitu ñu nga xam ne mooy que sëriñ Abdou Lahad lan lañ fa doon def. kër Serigne Touba gi ñu ngi fa nekkoon di fa di fa di fa di fa xidmaal Serigne Touba ci gan yi Serigne yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër ga mooy di leen ataayaal di leen kafeel ca lan yamoon waaye mujj liggéey bi euh, kawe liggéey bi yaatu ba xajatun fa euh, sonu maam Issa Mbacke ñëw ci Serigne Sidi Abdou laxaat mi nga xam ne moo fi toogal Serigne Abdou laxaat yàlla fi yàgg loolu te wér daal di ko koy gaaral mu jox ñu li nga xam ne mooy mooy mbaar mi ñu fi liggéeyal sëriñ Touba suñu taxawaay ci màggal gi nag mooy. di toggal handicapé yi Ahlou Café ab taxawaayam ci màggal gi mooy di toggal ay gan ñi nga xam ne amuñu fu ñu dal te ñëwal Serigne Touba Ahlou Café seen taxawaay ci màggal gi mooy di toggal ñi nga xam ne dañoo réer wala ñi nga xam ne bëgg nañ ñëw ci jumaa ji jaar si heure lekk fekk leen fa te amuñu fu ñu xewloo noonu noo leen di taxaw moo waral fédération Ahlou Café ci ay gox yu fasantikoo nag ndax euh, du ma ne Sénégal waaye foo mën a dem partout dans le monde Ahlou Café am na fa. léegi ñooñu nag ñooy boole seeni dërëm ak seeni i amul kenn koo xam ne day financé ak lu café waaye ñoom ñooy dajale seeni dërëm ak seen i ñaar di ci jëfal Serigne Touba ci ñi nga xam ne ñoom Serigne Touba lañ ñëwal ñëwal gin ñëwal Serigne Touba nag moo tax ñun ñu engagé wu ne ku ñëwal Serigne Touba war na laa bégal moo waral ñu leen di bégal fii nga xam ne mooy ki Serigne Abdou Lahad Mbacké di fii amal li nga xam ne mooy ay bernde ñamu Touba mooy ñamu tubaab mooy bernde yu yu yu ngun-nguni rek bernde yoo xam ne da koy da koy da koy xéwloo yëg na yaa ngi tubaa waaw koy ñu murite lancé waale benn message ñi nga xamante ne nii ñooy bonne volonté yi ñu ñëw jàpp ci lii ndax lii képp ku ci dugal sa doo ko perte di nga ci am yàlla di ci am yiw waaw na koy gën a lancé rek ci euh, Galaxy TV képp ku koy ku seetaan na xam ne njabootu soxna maam Issa Mbacke Ahlou Café ñu ngi fii ci kër Serigne Abdou Rahmane Mbacke li ñu fi def ci màggal gi euh, ci màggal gi nag ak yeneen barab yu fasantikoo yeneen yeneen ndaje yu fasantikoo Ahlou Café année bi yëpp moom amul benn benn benn benn temps bu muy toog te du liggéey Serigne Touba ñun suñu baas mooy liggéeyal ku tedd kon màggal tubaa gi fii la ñu nekk ñu ngi lancé appel mbooleem koo xam ne yaa ngi dégg suñuy kàddu te mën a ñëw di jàpp ci liggéey bi nga jàpp ci waaye nag loolu dañuy xam ne ku tedd gi mas wax ne am na am na alal yoo xam ne mënut ta dugg ci sama mbir am na alal yoo xam ne lu mu bari bari mënut a dugg sama mbir moo waral euh, kem nu mu toll rek dañuy xam ne ku baax ki moo ko bëggee noonu màggal gi borom màggal gi moo koy defar nit mën na yor milliard am yéene ji te fekk ne ku baax ki nammul mu dugg ci màggal gi nit mën na am dërëm ku baax ki namm mu dugg ci màggal gi day dugg ci màggal gi waaye moo koy defaral boppam day jag déwén ku rayoon daaw ku rayoon benn nag déwén da rey da ngay rey ñaar exemple laa joxe ñun yokku nan yokk gi ñu yokk na koy sant Sëñ Tuubaa ndax xam nan ne yokku nañ na da ren dañoo tër nag yu bari dañoo tëg dañoo tër nag nag yu bari barki Cheikh Ibrahima Fall rey ginaar fu si na koo terale gani Sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñëw nañ si ñëwal nañ Sëñ Tuubaa kafe gi tamit noonu lañ ciy jëfee ndax suñu suñu base mooy kafe gi ndax euh, boo nee axlu kafe moom Euh, ñëpp xam nañ ne seenu doxalin mooy liggéey sëñ Tuubaa ci kafe gi ndax soxna soxna Aysatu Gaawaan Mbàkke moom sëriñ moom moom ku baax ki sëñ moo ko joxoon soxna maam Isa bindëb téere takkal ko ci bopp bi na ko sama doomi xol nga kon baatin la moo waral kafe gi ñoom ci xam-xam xam-xam biñ ci mooy dañ koy segg ci seggin woo xam ne bu dee ndoxum xorom mën nan laa wax poudre kafe bi muy jël bu dee ndoxum ndox mu neex la mën naa laa wax euh, poudre café bi muy jël ak li koy suukar ci suukar ba mën a gi ñaata litre la ak ñaata nit sax ñoo war naan mën xam nañ ko ku ki def te lañ koy euh, yi. Euh, soxna si ba tey rek ñu nekk ci waañ bi ñaata mbana ngeen di faral di togg li ngeen di togg par jour pour boo estimer si ñaata mbana lay togg. bon ñun nag xoola boo xoolee def mën ni parce que si ci bi ñu bi ñu bi ñu jugee ci Mbalema def nañ 4 jours ci Mbalema bi ñu fa jugee ci cinquième jours safar euh, safar bi ci la ñu presque installé woon fii nga xam ni boobu dañ doon segg di joxe kafe gi boobu nag xëy na togg yi demeegul noonu mais barki démb ba tey daanaka chaque jour dañuy dañuy teg mbana parce que mbokki taalibe yi chaque jour ñu ngi fi takkat nit ñi dañoo xam kafe gi fu mu nekk dañ ko fay nekk en plus de ça ñun li nga xam ni moom la ñuy def te mooy handicapé yee xeet yi nga xam ne si ñoom la ñuy alimenté ci bis bi ndax it loola ku ci nekk moom sant dafa yaatu moo tax soxna si opté ñi nga xam ne ñooy handicapé maanaam les personnes diminues ku ne xam na ni sañ bi moom dafa woote te ñi bu wootee ñëpp koy wuy si te moom moo am lépp xam nga soxna May mi nga xam ni yor na ay loxoom ay cëram yëpp mën na mënal na boppam lépp bu bëggee def déplacement moom mën na ko yomb waaye noonu mu amee soxna May moom noonu la ay nit yeneen yoo xam ni Euh, soit dana am benn cër ci ñoom boo xam ne dana dana leen gàllankoor ba li ñu waroon mënal seen bopp lépp day jafe moo waral ñu jël décision boobu te ku ne xam ne dañ fay takku ku ne xam ne fii naka jekk ca màggal ca jamono Cheikh Abdoulaye ba nagari fii moo nekkoon seen siège voilà bi ñu bi bi yàlla dogalee ñu indi ñu fii nag ñu ne ah pour pourquoi pas ñun tamit ñu jël décision bu ñu toggee fii di leen alimentaire kon donc loolu mënut nekk lu ndaw tey jii rek ñetti mbana lañ taal démb noonu te tamit noonu lañ koy wéyalee reer bi tamit noonu. ci ndékk yi la ñuy tàmbaleeg ñoom bu ñu xëyee suba nuñ mën a def bañ ndékk te bala ñoo mën a alimenté kenn ñoom la ñuy njëkk a jox ba ñu yëg ni handicapé yëpp mat na sëkk kon donc loolu mooy waral maanaam bilan wu togg bi moom buñ koy estimé ci ci diggante démb ak tey moom mën nañ ni tey ci suba togg nañ ñetti mbana reer bi danañ def noonu suba tamit ñu yokkaat ko incha allah pour juste satisfaire leen. la yàlla na gëm kanam yàlla na gën a yokku euh, sëriñ bi daal di ci gën gën a gën a teg loxo ndax yéen a ngi def liggéey bu am solo Euh, mais dañu gis ne yéen da ngeen di séddale ay ñam ci ñi nga xamante ni ñoom ay kandi ay handicap euh, excusez ay handicap euh, lan moo waral loolu tamit. waaw soxna mama loolu tamit mu nekkoon beneen fànn ba nga xam ni daa ñëw jokkuwaat ci liggéey bi ndax kat liggéey Serigne Touba daa doon la nga xam ni chaque année. day gën a évoluer loolu sax moo tax ñu ne liggéey Sëriñ Tuubaa amul tànki ginnaaw tànki kanam la am looloo waral gannaaw bañ dooree ci café di ko séddalee ci alentour jumaa ji yëpp chaque màggal même ay gàmm wala yeneen cérémonie religieuse bu nekkul sax ci yoonu murid dañ fa daan teew di fa di fa séddale li nga xam ne mooy café Serigne Touba gi màggal gi nag mu doon am particularité ñu ñëw fii kër Serigne Abdou gi gis handicapé yi doon des personnes des personnes diminuées am la nga xam ne peut-être manqué nañ ko te ñun peut-être ñun manqué wuluñ ko ci waxin ñu gis ni tamit dañuy jànkonte ay ay coono yu métti métti métti ci ci ci màggal gi ñu jël initiative yi boole ko café gi di leen toggal ay leen ko jox di leen jox seen ndékki seen añ ba ci seen reer ba keroog màggal gi di jeex loolu ñu jël ko yokk ko ci li nga xam ne mooy liggéeyu kafe gi waaw rafet na euh, mu nekk loo xamante ne nii ñëpp dañ koy rafetlu ndax fekk koo xamante ne am na lu yàlla wàññi ci moom nga dimbali ko jàppale ko ba fexe mu lekk naan ci diirug euh, bi nga xamante ne nii moo di màggal gi loolu c'est un geste à mu nekk lu rafet a rafet loo xamante ne nii ñëpp dañ leen ci sant di leen gërëm euh, lii nag mu nekk lu fi yàgg yow tey lan ngay yëg boo demee ba bokk ci li nga xamante ne nii moo di joxe ñam séddale yow ban yëg-yëg lay def ci yow. loolu ak sant la parce que maam Cheikh Ibrahima Fall dafa wax ni dabe ndab képp koo bëgg a raw ku ci nekk rek jaare ko ci jaare ko ci joxe ñam ndax dañuy wax saa su nekk jaamu yàlla dafa bëri xeet nit dana julli ba pare taxawal julli xamul ndax lam julli suñu borom nangu na ko nit dina woor woor ba pare xamul ndax lam lam doon woor suñu borom nangu na ko mais joxe moom maanaam te dañ koy tënk ci xidma xidma nag moom mooy li nga xam ne saa bu ñaq génnee rek suñu borom da koy fay kenn mënu ko tricher buñ nekkee fii mbégte mi sànq rek bi ñu bi ñu bi ñu nekkee ci distribution yi maa ngi koy wax da ngay xool xar karamu mbokku taalibe yi nga gis ñoom mbégte mi nga xam ne si te te laxasaayu togg ba mu normal nga nga di ko servir loolu man jàpp naa ne mooy mooy mbégte mi gën a neex parce que sëñ bi moom lu ma wax tuubaali abdin muridin saadihin lahu moo bi xidmatin aw bi hubbin aw addiyaati boo ci def nag day mat te xam nga ni xéewal yi moom bala ñu koo togg addee ji day génn te addee moom ko amul yëg-yëg ci sëñ bi bëggoo ko mënoo ko def loolu mooy hubbin gi ak addiyaat yi léegi nag xidma gi nga xam ne moom ñu fekk si mooy lii ñu nekk di ko def kon daa yaakaar naa fii koo fi fekk da ngay gis seen xar kanam yi mbégte moo xam ne maanaam lu kéemaane la waaw nga xam ne dañ ciy yëg sëñ Tuubaa bu wér a wér ku ci nekk nag fa nga nekk man jàpp naa ne la ngay def yaa nga yëg sëñ ma mais man damay jàpp ne ñun dëgg-dëgg màggal gi ñun jàpp naa ne ñun kenn ëppale ñu ci doxin wuñ koy doxee ndax fi ñu nekk la ak niñ koy defee la kon loolu tamit ñu ngi ciy santaat sëñ Tuubaa bu baax baax a baax mu nekk lu rafet léegi euh, ku bëgg adhéré ci li nga xamante ne nii moo di Akhlou Café nan lay def ak ban yoon lay jaar. waaw euh, ni ngay adhéré mooy am na am na am na fépp ci àdduna am na am na dakaar dakaar ay section yu bari la am na Touba fii am na Thiès am na foo foo mën a kii ci ci ci Sénégal rek am na fa nga xam ne mooy mooy mooy àdduna bépp rek Amérique. Espagne foo mën a dem rek waaye ku bëgg a bokk ci Ahlu Café mën ngaa contacter bu fekkee dinañu ko permettre ñu dugal numéro boo xam ne képp ku ci woote boo boo boo boo boo boo boo boo bëggee bokk rek incha allah dana la dugal ci liggéey bi liggéey bi nag maanaam ma mooy mooy mooy mooy organisation boo xam ne non gouvernementale nu ko tubaab di waxee non gouvernementale liggéeyal Sëñ Tuubaa kese yu roxu dara ci la ñuy dox kon 78 381 91. képp ku ci woote dana la boole président Omar Fall Samb mi nga xam ne mooy président ñun ay ndongo rek lañ waaye képp koo xam ne woote na ci numéro boobu rek dana la boole jëriñ ji wax la sart yi méttiwul ndax du sas yoo xam ne dañ koy teg muy muy diis waaye liggéey Sëñ Tuubaa la àndoo dërëm dugg ci ñaar dërëm dugg ci million dugg ci milliard dugg ci noonu rek la ñuy doxee. dama la dégg sa bureau wax mu mel ne rek Euhlou Café nekkul màggal kese ngeen di joxe ay teraanga kon bu dul màggal aussi da ngeen dem. waaw soxna si waaw comme ni ma ko waxee rek ñu ngi Euhlou Café mi ngi ci diaspora bi mi ngi ci réew mi mi ngi ci bitim réew comme ni ma la ko waxee bépp cérémonie religieuse ba nga xam ne euh, liggéeyal yàlla moo ko tax a jóg boo ñu convier wala ñu yëg ko sax dañuy ñëw teew sedd séddale fa café Sëñ Tuubaa yi gratuitement dem na sax ba au delà aspect fédération daayira bi Café dem na ba constitué en ONG actuellement am un suñu agrément en ONG alors ku nekk xam ku wax ONG wax organisation à but non lucratif di yëngu ci li nga xamni moy deug deug social d'ailleurs donc kon ñi nga xamni ñu ngi dégg Euhlou Café jappé kon fédération nañ jàpp ne Euhlou Café ci fédération bi mu doon amna benen branche bu nek ONG nek ci biir Euhlou Café gi ngir dox ci deug deug social. lenn li lemaita tëje mooy màggal gi li may tëje mooy nañ santaat Sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax ndax kat ni ma ko fa waxe woon démb ñun waxuma bernde ñamu Tuubaa yi togg waaye kafeeg Sëñ gii nga xam ne moom segg di jox Sëñ Tuubaa yi yéene ji bëgg ku ci ji naan ñu jox la kafe nga góox siggi xool sooral bi ba xam nu mu demee suñu liggéey ci gi tubaarkàlla kon sant. macha allah loolu nekk na lu am solo ndax euh, bu ñu xoolee yéen a ngi jàpp bu baax ci li nga xamante ne nii mooy développement réew mi ndax ku ñëw di jàppale ay waay laago ñoo xamante ne nii am na peut-être benn cër bu manqué ci ñoom ba mën leen a ñu def yenn activité yi yéen ngeen jog am volonté ñëw ngir rek euh, dimbali leen loolu c'est un geste à saluer lan ngay wax ñi nga xamante ne nii ñoo nekk euh, ñoo ñoo am genre initiative yi pourquoi pas ñu ñëw jàppale. jàpp ci affaire bi euh, gën a gën a jëm kanam donte yéen a ci yoon bi. macha allah mama loolu moom dañ ciy sawar loolu ndax liggéey bi ku nekk boo ko gisee du liggéey bu ndaw te dafay laaj ay moyens liggéey bi daal laaj moyen ci domaine logistique parce que mënoo segg kafe te amoo café en poudre mënoo segg kafe te amoo aussi beneen composant bu ñu tuddee suukar même boo amee ñaari yooyu tamit a segg kafe ba mu doon liquide. te amoo li nga xam ne mooy ay cash à jeter yu ko séddale te loolu yëpp boo xamee budget la bilan la te jógewut fenn fudut ci poosu taalibe yi ñi nga gis ñii nii ñooy ko di seen dërëm ak seen ñaar dërëm ak jàmbaar ji ñu àndal di soxna maam Issa Mbacké yëkkati xaalisam di ko ci dugal ngir dimbali jaamu yàlla yi kon boo waxee loolu dañ sawar képp ka nga xam ni daal bëgg nga sa liggéey dugal ko fa nga xam ne yàlla gërëm na ko boo ñëwee ci daare bi incha rab bi dina la ko ci dugalal te liggéey bi moom dañ koy boo ko ci dugalee dañ koy génnewaat nga koy gis ndax ci jaamu yàlla rek la jëm kon ñu ngi ciy tàllal suñu loxo bon volonté yëpp képp ka nga xam ne bëgg nga ñëw eh, jàppale structure bi ci wàllum appui ci wàllum lu mu mënti doon boo ñëwee dina la ubbil suñu bunt suñu suñu porte nos portes sont grandement ouvertes eh, dina la dalal aussi tamit di leen sawar lool ci lëkkaloo ak loolu noonu mooy mooy mooy jàppalante gi joxe ñam rek dara la mais boo koy def nga ànd ci ak kanam gu ubbeeku di kaf di ree loolu day tax sax ba ki nga koy jox même bu xiiful woon day am envie lekk mu nekk lu rafet a rafet a rafet euh, ñu ñëw rek euh, tëje ko mooy li nga xamante ne nii ndigal li fi sëriñ bi wàccee lan ngay wax euh, mbokk taalibe yi ñu ñëw fii ngir màggal. waaw moom de daanaka mbir mi moom li mat a def lépp sëñ bi def na ko li ma li mat a wax wax na ko li mat a jëf Cheikh Ibrahima fal jëf na ko. kon jaakaar naa mi ngi mel ni rek ñu bindaloon leçon nga dem sa kër di ko jàng di dikkaat léegi nag bu fekkente ne yow yaa bëgg note bu baax da dem boo demee seen kër da ngay jàng nga li ñuy wax nafar bu fekkee bëggoo note bu boo demee da ngay ni yasar li ci ëpp solo daal mooy sëñ bi moom ku ko jëfal mu fay la amul kenn nag te dama ni même bu sëñ bi da dikkoon ñu ëllëg maanaam fayu ñu ñu leen leen mbégteem jëf ji rek dafa ëpp lépp kon nag daanaka jarul ñu ciy sonn kenn ku ci nekk xam nga la la ci war muy ci suñ côté soxna yi di ci côté lépp ndax li may wax saa su nekk rek ñun ñi nga xam ne ñun ñooy taalibe Sëñ Tuubaa yi Sëñ Muntaxa moom chaque wone na yoon bi muy ñiy ñëw ci màggal geek surtout ci ndigal yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa fan yi mi ngi ciy soññi mbokki taalibe yi ndaxte en tant que jullit am na loo xam ne ki nga xam ne dafa jug pour dem sabar ga bokkut ak ki nga xam ne si par exemple dafa dafa dafa jug ngir ñëw ci màggal gi kenn ku ci nekk ci ñun nag war ngaa defar sa bopp defarin woo xam ne boo bu sëñ bi ni woon tëll bu la ca fekkee yow yow yow da xam ni ci lii nga nekk nga war a nekk. du rafet na ñu bàyyi rek nga joxe sa euh, mot de la fin nga waxaale tamit sa avis ci li nga xamante ne nii mooy euh, yi ñu jël euh, ci màggal gi. waaw mesure mooy mesure barrière yi quoi waaw sama mot de la fin xanaa di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon wi suñu borom teg leen ci yoonu jàmm. ñi nga xam ne egsi nañ suñu borom tamit dimbali leen bañ delluwaat ci njaboot gi ci jàmm ak salaam. mesure barrière yi tamit di ñaan comme que dëkk moom boo fay dem ku nekk këram lam bëgg moom nga war a respecté ci këram kon ñu ngi ñaan mbokki taalibe képp ka nga xam ne ñëw na ñu fexe respecté li nga xam ne moom la sëñ bi bëgg ci dëkk bi te sëñ bi bëggul leen ci dëkk bi lu yiw sell jaamu yàlla loolu rek la bëgg ci dëkk bi képp ku ko def di nga am njariñu àdduna ak njariñu àllaaxira ñu moytu bu baax a baax a baax lépp la nga xam ni dañ koy tere ci biir dëkk bi ngir jariñoo kontaan ndigal ndigal li li li sëriñ bi joxe nag euh, loo ciy wax bokk yi nag. ndigal nag moom moom ndigal li ay waay ndigal li ndigal li nañ ko jëfee te xam ne sëriñ bi nag wax na ni ñu dëkk Touba moom dañuy war a fexe ba sàmmonteeg li ku baax ki bëgg ndax tubaa Touba titre foncier la mooy ku baax ki sëñ Touba moom moom Touba. daa ngi dégg léegi nag ñi nga xam ne dañoo dañoo màggal si yaaram ku baax ki waxoon na nii nañ leen dawal yërmande ko gis mu xam ne def na lo xam ne waru ko def xamal ko ne ah tuba kat li dañ ko fi teye ngir bu ëllëgee ah, du ko def duñ lor kenn duñ dor kenn duñ nangam kenn waaye bëgg nañ li li li suñ jox digal Cheikh Fall moom ala kulli hal, Cheikh Ibrahima Fall da def kon ñu ngi soññaat ñi nga xam neng ñoo dëkk Touba nañ sàmmanteeg eh, ndigali sëriñ bi da ngay dégg jigéen ñi naan ay waay dañoo xanaa dañoo bëgg a soppi mer waaye maire yow Fall Ndiaga yow xool yow yow xool ni nga yiiwee nii yow mi taxaw di ma interroger ni nga waaw Fall murite lii mooy lislaam lii mooy diine lii mooy lii mooy murit lii mooy waaw bu fekkee jigéen ñi dañoo bëgg di def yooyu jaayre góor ñi leen xool ñun yii la ñuy xool ñu yee yii la ñuy xool. <laughs> téléspectateur ñu ngi woon fii ci kër Serigne Abdou Lahad Mbacké comme niñ leen ko waxee sànq rek dugg nañ fi waxtaan nañ ak jëwriñ yeeg soxna yeeg ñëpp ci li nga xamante ne nii mooy fédération Ahlou Café mu nekk loo xamante ne nii ci café la dooree waaye tey dafa nekk lu yaatoo yaatu ndax lépp luy teraanga rek dañ ko fi daal di joxe ñi nga xamante ne nii tamit dañoo ñëw fii ci Touba amuñ fu ñu dal boo leen ñëwee fii dinañ leen jox ci bernde yi jox da rafet rafet ndax ñoom rek ah, dañuy jàppale ñi nga xamante ne nii ñooy ay ah, waay laago mu nekk initiative bu rafet boo xamante ne nii képp ku ko dégg rek sa dina sedd même bu ci sa ah, dërëm demul ñu leen di remercier ñoom ñëpp bu baax a baax a baax di leen wax rek ñun waa Galaxy TV fépp foo xamante ne nii dañ fay yëngu ci màggal gi dañ fay daa teg suñu tànk ànd fa ak yéen ngir la wan leen lépp loo xamante ne nii da koy soxla donc tey lii lañ leen indiloon di leen jox dig daje ba beneen incha allah